tas yaakaar siyaar naa la. yaa ngi tas la. boo gisee lamb ji tas yaakaar. waaw naa yus neex am na animation am na lépp. tey tas yaakaar foo jógee fii foo jógee ba ñëw fii nii. waaw dara. Dakar laa jógee ñëw. Dakar waaw wala yaa ba mar looj. waaw di jégalu sama supporters yi dama blessé woon moo tax ñu gën ma gis. fii mos nga fee bëre. waaw non c'est la première fois. la première fois nga ñëw final. incha allah ah Yankoba Diagne nga déglu mos ngeen bëre. waaw Yankoba Sarr nga déglu mos ngeen loolu mos ngeen bëre. ah nee ma fii géewam la de. waaw waxe doof maa ko bu doole maa ko man maa ko gën a lekk xaar. Ah. koo teg loolu sax waaw léegi dina leer incha allah. Ah. kon bon sax loo wax fan si nag. waaw di leen wax tas ñëwaat na. nañ yokk ñaani rek dama blessé mbulum laa gaañoon. si loxo sama loxo bi dama felloon. mais nañ ñaan bu baax léppay baax incha allah. ok bonne kon. Ah. tout droit ñu présenté leen BNS électronique auto yow mi yor auto lépp loo yitewoo ci lu dem ci installation gadget électronique maanaam ay appareil de localisation GPS ya wala décoration intérieure avec lumière d'ambiance ma ne ay lampe LED lépp loo bëgg ci sa auto ay réinitialisation de système électronique lépp am na fa da ngay dem yóbbu sa auto ak façon auto bi mu mën a doon ñoom ñoo koy jaay te ñoom ñoo koy defar ay xale yu xarañ mën seen liggéey macha allah woote leen ci numéro boobu affiché ci suuf ndeysaan ngeen dem waa PNS électronique auto defaral leen seen oto ba mu yànji te ànd ak sécurité. Aliou Papa Mafia Diouf de Bisnawa Aliou Konte ca Mar ca Marlotte wala ca Espagne Aliou Konte la gën a sàmm naa la martaba ko jëm ka dunya sa defee garamba ji kalmu ndóor Sorgho Poit le champion de Mar bisu Dior bisu Baba. Ngom Seereer Astu Jamaa Xadi Ndey la bëgg naa waaye Mbisaan Saar wala Théodore te Fatick Mbisaan bëgg naa